Hey aousubillahi min asheytaani irajim bisimillahi rahmaaniirahim wasalaatu wasalaamu ala wajal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawwir waxal bi arsida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen eh, ziyaare di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi janoog ñun moo xam eh, ci réew mi la ak ci bitim réew ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax waaye di jiital ci nuyu ak ziyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram ci li nga xamante ni mooy jataay bi nga xamante ni teewe na ko ci yoonu maam bu tedd wi macha allah mbokk yi ba tey Touba Vision dellu si ci jataay yi nga xamante ni mi ngi koy faral di ànd ak saa su nekk ci programme buy dëgmal jamono ji nag kenn ku nekk xam na ne eh, gàmm mi ngi ñëw waaye gàmm buñ ko waxee rek kenn ku nekk ci ñun war a xam murid yi dégg-dégg wàccuwaay wi nga xamante ni noonu lañ ci war a amee ak taxawaay bi nga xamante ni moom lañ ci war a taxaw bu baax a baax a baax ndax lan suñu yaakaar tey ak ëllëg Serigne Touba Seexuna Ahmadul Xadim fi mu tegoon rasulillahi ba tey jii lépp loo xamante ni am na ko mu am ko ci li nga xamante ni mooy wuyoo gi nga xamante ni wuyoo na ko mooy kenn ci rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam te dootul am macha allah Vision nag comme noonu rek fas yéene indil leen ay wàccaay yoo xamante ni dañ leen koy fas yéene bégalee ci li nga xamante ni mooy gàmmu gi tey ji nag comme ni ngeen ñu miinee rek ñu ñëw fii ci kër Serigne Gana Messere Makhtar fii ñu toog nag Touba Vision yàgg na di fi ñëw di fi amali ay jataay yoo xamante ni kenn ku nekk xam na ne bu programme di ñëw rek rawatina moo xam màggal gu mënti doon na wala gàmm comme nii rek dañ fi ñëw seq ak moom ay jataay yoo xamante ni lenn lay doon ci waxtaane ngir Serigne Touba waaye waxtaane ci li nga xamante ni mooy programme boobee ñu dëgmal tey jii nag ñu fas yéene waxtaane lenn rek ci gàmm gi ndax kenn ku nekk xam na ne comme niñ ko waxee léegi rek Serigne Touba ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp nga xamante ni Serigne toppoon na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak li nga xamante ni mooy wax yu rëy yi ñu wax ci moom yépp nga xamante ni ci àdduna doo gis ku ko wax ci moom macha allah Touba Vision ñëw nag fas yéene indil jataay boo xamante ni spécial lay doon jataay boo xamante ni ngir wàccaaye ko li nga xamante ni mooy gàmmu gi waaye fas yéene koo feggoog rek Serigne Gana Messere Makhtar mi nga xamante ni moom léppam Serigne tubaa la kenn ku nekk ku xam Serigne Gana Messere rek la ngay teg ci moom kennal tubaa Touba Serigne Touba Seexuna Ahmadul Xadim mu doon lu wér loo xamante ni da koy doxee di ko waxee macha allah di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom gën koo dëgëral gën a wéral ay cëram bu baax a baax a baax ba naal yi nga xamante ni naan na ko ci yoon wi nga xamante ni ci la ñu nekk suñu borom gën koo kattanal ba mu jekk ko comme ni mu ko bëggee macha allah sëñ Gana mu mel ni comme ni ngeen ñu miinee rek ñëwati nañ ci suñu kër. ñëwati nañ ci jataay bi nga xamante ni bokk yi miine nañ ñu ko ngir fas yéene waxtaane lenn ci lu jëm ci li nga xamante ni muy guddika maw mawlidu nabi maasa allah ñu fas yéene ci seq yow jataay boo xamante ni bokk yi nga xamante ni ñoo ñuy topp ci réew mi ak ci bitim réew nañ ci jëlee kontante goo xamante ni it du am yemuwaay waaye di jaajëfal équipe bi nga xamante ni it moom lañ àndal la buñ tuddee suñu Ablaye Seye moom it kenn ku nekk gis ko liggéey bu am solo bi nga xamante ni mi ngi koy amal fële ca bitim réew ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a ci équipe bi nga xamante ni ñoo nekk fii ci réew mi fii ci Touba sëriñ Ahmed Dame Gueye moom it kenn ku nekk xam ko digganteem ak Touba Vision sëriñ Abdoul Aziz Diop Guy Mbind TV moom it mu doon lenn ci li nga xamante ni mooy liggéey bi kon xam naa dañuy jébbal kàddu gi sëñ Gana mu nuyu bokk yi nga xamante ni mooy ñoo ñuy bàyyi xel ci réew mi ak ci bitim réew ba noppi rek indil li nga xamante ni mooy mbokk taalibe yi lenn ci ay tomb yoo xamante ni dafa jëm ci li nga xamante ni mooy gàmm gi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki julli di bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu moo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu xaq di leen bal di ñaanal ak cheikh muhammadul muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba lépp lu mun naal ci yéene ko lëggéel ak cheikhul xadim mu defe ko ni mu ko bëggee di ko ñaanal mboolem kilifa diine yëpp ak julli di ak taalibe mbokk yi di am mbégte ci dellusiwaat ànd ak yéen ci jataay bi nga xam ne baaxoo nañ ko ànd ak yéen di seen béréb bii di Touba Vision ci jataay yu am solo yi nga xam ne dañu koy seq ak ñoom di leen nuyu bu baax di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo koy seetaan di ñu ci topp jaarale ko ci sëñ Moodu mi nga xam ne moom la ñu feggool di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñoom la àndal yëpp ñëw ci bërëb bi ngir nu fàttalante dara ci diggante cheikhul xadim ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam baynal xadimi wal maxdum ci bis bu màgg bi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal muy mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam ni ko sëñ Modou Faye waxee léegi euh, képp koo xam ne yaa ngi waxtaane gàmmo di waxtaane yonent bi alayhi salaatu salaam dana la doy rek bu ñu ne xadimi rasul nga xam ne kinaayaam rek li ñuy tuddee kinaaya muy dàkkantalam màndarga mu rëy lay wane ci matuk melaw cheikhul xadim mi nga xam ne dafa jël léppam jeexal ko ci biir yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba tax amul benn dàkkantal boo koy wooyee lu mooy boo nee abdullahi wa xadimi rasul nga xam ne kon moom jaamu yàlla ci ne suñ borom bëgg ko ko waaye jaaree ko ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi ci la ñuy dàkkantalee cheikhul xadim muy koo xam ne it e, moom yonent bi salaatu wasalaam la def muy léppam muy kerkeraana muy wasila wasilati abduhu lmuxtaar sayidina huwa alladi man aba taqdimuhu xufida sëñ Tuubaa nee na sama wasila mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ma nga xam ne ku yàlla ku yàlla jiital la te képp koo xam ne bañ na jiitu yonent bi alayhi salaam yàlla sunu borom dana la gotti waxit ne baana li kulli man lahu maquulu anna wasilati wa rasul képp koo xam ne am na xel leer na la ne yonent bi alayhi salaam mooy sama sëriñ waxit boroomam laa tajaalanna baynii wa baynaka abad waasitatan siwal muqaddimi sanat sama diggante yow bu ci doxale kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola moo tax mu sañ a wax ne ala alladi bayni wa baynahu tasal bilan bilan fisaali sama diggante yonent bi alayhi salatu salaam taqaloo na suñ borom boole nañu egg naa ca moom te duutuñu tàggoo nga xam ne kon yonent boobu alayhi salaatu salaam sunu boroom dafa wax ne yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal nit ñi ne buñ bëggee mu bëgg leen lañ la topp xul in na la Allah fattabi'uni yuhbibkumullah kon ndeke cofeelu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi ci topp ko topp yonent bi sallallahu alayhi nag loolu la sëñ Tuubaa doon def bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam it kenn mënu ko caa jot ndax boroom xam-xam yi dañuy wax ne bëgg boo demoon tey ci bindkat yi am na ca ku bindoon téere boo xam da caa bind wujubu mahabati rasul wa te sunnatihi muy waruk bëgg yonent bi alayhi ak topp sunnaam wax ne mandarga yi tegtale ne nit ki bëgg na yonent bi mooy nam koy roye te sëñ Tuubaa moom dafa wax ne laysat liyal yawma xaajaatun uammiluha si waqti fayika xafal qalbi wal badan kon awma genn bëgg lu mooy roy la yow yonent bi alayhi salaam yonent bi wax na ku ma bëgg waxoon na feneen moom alayhi salaatu salaam ne man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kaana maa fil képp koo xam ne dundal na sama sunna moo ma bëgg waaye nag képp koo xam ne bëgg na ma maa moom nooy bokk nekk àjjana ëllëg kon yeesal sunnaam ak roy ko mooy tegtale bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam te sëñ Tuubaa yonent bi la bëgg moo tax mu sant yàlla it nag ci bijj gi yàlla bijj xolam ba mu bëgg yàlla ba bëgg yonent bi xamitu ilaahi bi shukrin lahu ala jasbi xalbi li xubbi nasix kon loolu léegi léegi ak cant yàlla la sant naa yàlla mi bijj sama xol ma bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg gi mu bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko fàtteloo lu nit di bëgg moo xam soxna la moo xam ay naari góor la moo xam alal la bi man bi xubbihi nasiitu layla wa dahaban wa fidatan wa xeela fàtte naa bëgg wurus bëgg xaalis bëgg naari góor bëgg soxna bëgg lépp ndax bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam nga xam ne kon moom bëgg yonent bi salaatu salaam mooy mbiram bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam ca lay dox melo mu am nag ci bëgg yonent bi moo tax muy màggal yonent bi alayhi salaatu wa salaam xam nga waxoon na ne laqad tabayyana li kulli sihtida an abna abdallahi xayru muqtada mm. nee na woon leer na ñëpp ku am am xel képp ku amul jub xam na ne ki gën a mat roy mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne nag kullul waraa yaxbitu ni fii xada wala yow ñëpp danañ ma ñee ci yonent bi ëllëg waaye àdduna lay tàmbalee ñu dema ñee ci yonent bi alayhi salatu salaam bu ñuy xool bëgg yonent bi mu bëgg yonent bi alayhi salatu salaam moo tax tey jii mu jël dundam jeexal ko ci tagg ko jeexal ko ci di ko liggéeyal nga xam ne yaf na alladi min umri xat baqiya fi shukri wal xidmati incha rabbiya bëgg yonent bi ba yegg ci wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu waroon a tawat man sëñ Tuubaa maa koy tawatal yonent bi sallallahu alayhi bu fekkoon ne am na dara lu ko war a gaar tey jii deretam war a tuuru mooy jot dereti yonent bi alayhi salaam nga xam ne dammi fidaun li xuruji dammihi wa maradi fidaun li daai jasadi sama deret man bu deret yonent waroon a tuuru rek joxe naa sama deret man sama deret na tuuru waaye bu yonent bi waroon a tawat man naa tawat man nag bu ma tawatee ay médicament du ma faj kenn du ma faj li faj mooy shifaau jismi wa shifaau xalbi muhammadun sallallahu alayhi rabb léegi man tuddal yonent bi rek ma wér foo ko tuddal rek ma wér ndax muhammadun dikruhu unsi wa mafraxati nuuru xal bi sëñ Tuubaa nee na fu ma nekk du ma wéet ndax bu ma déggee turu yonent bi rek wéttaliku naa mooy sama leeru xol ak samay cër moom bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam egg ci bëgg yonent bi waggar ko ba wax ne bu ma àndoon ak yonent bi alayhi salatu salaam muy dox ba yàgg mu jël tànkam mépp ko jëmee ko ci ak dégg wala jiit bëgg koo fet wala jaan bëgg koo mat nee na duma dandal dégg sama lex laay laltaay ca kaw dégg dëpp beneen lex bi yonent bi jaar ca kaw xaddil wiqaayatu li rijlil mujtaba an shawkatin wa ma yudaha aqraba kon kooku egg na foo xam ne ba egg ci ne xaddi jaxaltuhu turaaba naalihi yaa laystani laxidani bi fadlihi sama lex bi laltaay naa ko ci ron ndëggul dal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak neexoon yonent bi alayhi salaatu salaam question kon bëgg yonent bi kenn du ci jot Sëriñ Tuubaa bëgg yonent bi nag dañuy wax ne mooy xuutul xuluba gidaawul arwaax xam nga xol day dund ala bi dikri la tatma aynil xulub waaye bu xol dee dund ruux day dund ñu ne bëgg yonent bi mooy dundal ruux ku ko ku ko ñàkk rek dañ lay tudde min jumlatil amwaat yi way dee yi ci lañ lay classé moom nag mu jël léppam muy bëgg yonent bi sallallahu alayhi waaye bi mu ko bëggee dafa feeñ ci màggal lépp yonent bi sallallahu alayhi moo tax gàmmo moo ko gënaloon ci weer yëpp sëñ Tuubaa dafa fonkoon gàmmu weeru koor weeru safar muy weeru màggal lu tax gàmmu mooy màggal yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw sunu borom nag julli na ci alayhi salaatu salaam ginnaaw sunu borom màggal na yonent bi alayhi salaatu salaam ba noppi ànd ko ki malaakaam digal ko jullit ñi nga xam dafa wax ne inna allaha wa malaikatuhu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu kon yaa amiran bi an nusalli ala fa xumtu naazima lisil muqaddama kon day tegtale ca nuuru daaray ni tamhid muqaddima bi sëñ benn di nga xam ne aaya bii yàlla wax ne yéen ñi gëm yàlla na ngeen julli ci yoon ndax yàlla day julli ci moom moom it nag mu daal di alhamdulilahi la si yu salli maa ngi sant yàlla mi nga xam day julli ci yonente bi alayhi salatu salaam wa amara al amlaaka aydan bi sala kon nag mu digal ko malaaka kon yaa amiran bi an nusalli ala kon yow mi nu digal nu julli ci yonent bi alayhi loolu mooy eh, yaa ayyuha lazina amanu inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi yaa ayyuha lazina amanu sallu alayhi wa sallimu julli googu moo tax moom at mu jot mu warlul bu gàmmu ñëwee mu tagg yonent bi salaa salaam lil mustafa lasi turaam lahu salaatu wa salaam ma amti daahi kulla aam rumtu min al mukarrami yaa loolu contrat la bu mu signé boo xam ne at mu jot nee na danaa fexe ba jël addiyee jox ko la muy ak at moo xam ne bor lay doon nga xam ne léegi lay na mustamiran lay doon bor bu sax ci man ma di ko fay ak loo xam ne du bor du addiyee coobarewu la rek lil Mustafa al Karim fi kulli sana alayya am daaxun tura mustahsana loolu kon ci coobareem la at mu jot ma tag ko waaye xalit sasamtu lahu fi kulli ma sanati maadaama aqli maa day nal hadiyaat kon at mu jotit war nul naa ay tagg ci moom ala man alayya walastu sadix lahu kulla aamin hadaya madix nga xam ne kon xad intasamtu lahu fi kulli ma sanatin daynamti daaxin bi abiyatin garibatin nga xam ne abiyat garibat tagg yoo xam ne yu raar yu tumuranke yoo xam ne danaa ko wax yonent bi alayhi salatu wasalaam loolu moo tax nag mu fonkoon gàmmu gàmmu day histoire boo xam ne bu ne yàlla julli na ci yonent bi màggal ko sallallahu alayhi di ko màggal boroom xam-xam yi dañuy wax ne kon bu ginnaaw nangu nañoo màggal yeneen te ginnaaw bu du duloon yonent bi yàlla du sàkk kenn kon leneen du koor yonent bi sallallahu alayhi wàcce na ci alquranul karim wàcc ci laylatul xadr kum ko jox yonent bi alayhi salaam jël kawsara jox yonent bi alayhi salaam li jullit ñi am lépp di ko puukale te ba wala soo fa ñox tikka rabba ko fatarda yàlla daf laa joxi ba noppi dana ko gërëm te yàlla mi joxe du bàyyi waxtu nekk day dolli yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay xéewal yu dakk moo ko jox xéewal yëpp moom alayhi salaatu wasalaam nga xam ne tey jii malaaka yi bu ñuy sujjóot ba ñuy sujjóotal sayyidina Adam yonent bi moo tax can gi takk diggante Hawa ak Adam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci muy julli ci yonent bi alayhi Adam nekkee àjjana wéet dafa wax suñu boroom na ko man de damaa wéet boo demee ci badaa'ihi zuhuur fii waqaa'ihi duhuur jàngoon naa ko bu yàgg bu ma juumee borom xam-xam bu jéggal moom jamono yi may jàng téere arab yi badaa'ihi zuhuur fii waqaa'ihi duhuur nee na booba aadam dafa wéet ci àjjana wax suñu borom damaa wéet mu mel ni ngëmmeen daf koo dal suñu borom rocc ci faar gi bind ci xawa xawa moomu bu taar doon jun téeméer juróom ñeen fukki ak juróom-ñeent moo ko yor ci taar bi mu yeewoo ci ngëmmeen bëgg ko teg loxo suñu borom dana ko bu ko laal araam na la bu ko jege mu ne xanaa binduñu ko ngir man mu ne ko déedéet bu ko laal lu dul ñu can la ko lii can gi nag mooy na nga julli ci yonent bi wax allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam kon mm, ci leeru yonent bi la yàlla digal malaaka yi ñu sujjootal aadam nga xam ne sujjootalun aadama ngir aadam waaye eh, li nuurihi sajadat amlaaku ko kon malaaka yi bu ñu sujjoot ci aadama jëmmi yonente bi alayhi salaatu salaam moo tax ba ci am yonente yëpp ku ci nekk la nga am dimension ba fa mu toll yonente boobu nag sallallahu alayhi bi mu fi bàyyi koo ki ñuy wax Abu Saïd dëkkoon Erbel Irbel moo jëkk a ci xarnum ñetti téeméer ginnaaw gàddaay gi moo jëkk a gàmm waaye bu dee ci suñu réew mi maam Asawalo fi jëkk a gàmm maam Asawalo Eh, maam Asta Walo ga gàmmoo na sindiidi bi sëñ Tuubaa bind defee na ko ay at maam Asta Walo gudd na gudd fan sëñ bi it bu dee gàmmo bokk na ci ñi ko jëkk a woote ci réew mi ndax moom da ko date wax dat dat bi mu ko gàmm bi mu ko tàmbali jëkk muy tàbbi ci gàmmo nga xam ne jëmmi mawlid bi ci boppam weeru gàmmo la jëkk a jox dayo waxal boppam ne lii xaada rabbi fii rabiil awwali maaraamahu walam yanal kula wali loolu moom doyoon na ñu noppalu dafa wax ne yàlla jox na ma ci weeru gàmm loo xam ne wàllu yëpp a ko doon wër te amuñu ko lii xaada rabbi fii rabiil awali maaraamahu walam yanal ku la wali kon yu yàlla yi dañ doon jeex gàmmo di ko wër lañ doon seet ci biir gàmmo amuñu ko man mii la ko yàlla jox kon loolu doyoon na ci melo mu nekk koo xam ne moom Serigne Touba euh, dafa bëggoon weeru gàmm jëmmi weer wi da koo bëggoon ndax bëgg gi bëgg yonente bi alayhi salaam moo tax bu weeri masaa ñëw da koy dalal ni nit di séentoo gan tey jii ñu ne ñu ngi séntu weeru gàmmo wi sëñ bi du koy dalal di wax ne raxabtu taaziman bi chahril muntaqa alayhi taslima munil taqa basharta yaa rabia kula di tuqa yaa sarfa nuuri wa safa kon day mel ni weer wi moom sëñ Tuubaa koy tatagal di ko xaar di wax ne weer wi lu tax ma bëgg ko yaa man la billadi lam yuxlaqa nadirahu wa abadan lan yuxlaqa yow kat weeru gàmmu li tax ma fonk la yaa nu indil ki nga xam ne yàlla mësta bind am kemam baatu nadir dictionnaire yi yàgg nañ fi te mënuñu ko woon a xam sëñ Tuubaa wax na ko lu toll cinquante ans ñu door koo génne misaaluhu lañ doon wax ak waaye nadiruhu sëñ bi dafa dafa dafa yéeme boo gisee sëñ Tuubaa boo ko di dund di ko jàng sax xam-xamam loolu meneen mbir la waaye waaye nag lakk aqulu marhaban lil muntaqa yaa man xaba bihi wa an layr tataqa marhaban ñëwal kay kaay ahlan wa sahlan ñëwal yow dal sil yow weeru gàmm lu tax nag muy sant yàlla ci xéewal gi yàlla indi ci weeru gàmm moom sëriñ bi nga xam ne wi la jëkk a wax alayka ahmadu lati qad atlaqa kulli li wajhihi walastu mumliqa weeru gàmm wi kat daf maa indil ki nga xam ne sama lépp moom laa ko jox mu yonente bi alayhi salaatu salaam waaye nag bu may dundal weer yëpp lay dundal daxaa nii ila ihyaayi te chehr kaw nahu li xayril wara zarfan xawaa kulla siidadi yaa ne waxtu wu nekk rek bu weer wi ñëwee da koy màggal ndax ki ci feeñ mu yonente bi alayhi salaatu salaam sëñ Tuubaa wax ne waxuma la jëmmi gàmm waaye weeru gàmm rek day faj samay tawat lu ma mën a dal ba weeru gàmm ñëw damay wér samay coona samay tàyyeel sama ngëlëmte weeru gàmm da koy dindi yaa xayra chahrin jaa bi xayri mursalin adhabta qat an maradi wa kasali nga xam ne sëñ Tuubaa nee na lu ma mën a dal bu ma weeru gàmmu ñëwee damay wir peleg xat an ci dog ba kase nii ak sama tayel lu ma doon def benn bu weeru gàmmu ñëwee dama koy dolli def ko fukk yaa xayra shahirin jaabi xayra mursilin mubasharan maxaw taxan nii kase nii bé bee dana yaa xayra shahirin jaabi xayra mursilin adhabta xat an yaa xayra shahirin jaabi xayra mursilin mubasharan xaw taxan nii kase nii an nii maxawta kasli wa wajali wa xayrati daa ismatin min xajali weeru gàmm Sëñ Tuubaa neen bu ñëwee day dàq ci man ak tayel dàq ci man ngëlëmte dàq ci man coono ak métit man damay aari ci lépp luy gàcc weeru weeru gàmm nee na weeru gàmm yi daf koy defal mu fees xolom diiru bu weeru gàmm gi nee na ak texe nga xam ne du amaat geneen bëgg saxaadat yi azharaha rabiul awal alladi huwa rabia nga xam ne tereetu sëñ bi noorub sëñ bi nawetu sëñ bi waxtu sëñ bi lépp sëñ bi mooy weeru gàmm weeru weeru weeru weeru weeru gàmm ngir bëgg bëgg weeru gàmm lu tax nag mu bëgg ko mu ne kon wajjaha lii mawlidu xayri mursali xalaawatan tax ji lu taamal asali weeru gàmm sëñ Tuubaa nee na weer wi rek la waxagul nee na andil na ma banneex boo xam ne day rusloo lem nga xam ne jëmmi lem ni mu neexee nee na li ma maanaam yëg-yëg bi may am plaisir bi may am banneex bi ma am ci weeru gàmm nee na moo dàq sax lem moom sëriñ Tuubaa lu tax ilay ya muxjilan lil xasali min xayri rabbin xayra baaqin mursali kon wammatal na ma loo xam day rusloo lem léegi neexaay gi kenn mënu ko lim ndax lakk xàlla yee yaa rabbi yoon xaqu duunaka ma anta bihi ah kon weeru gàmm moom la yaayoo moom sëriñ bi waaye sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala weeru gàmm la jàppoon mu gën weer yépp moom ndax lu tax mooy nee na mooy bëx jëta shuhuur maanaam weer yëpp seen taar sëriñ Tuubaa nee na mooy weeru gàmm ndax lu tax ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane jamono kon faaqa rabiul awwal ashuhur ashuhura bi mawlidi lazi bada mashhura lu tax weeru gàmm li tax mu gën mooy ci la yonent bi feeñ kon shahru rasulillahi bahjatu shuhur wa ramadanu shahru atqin wa tuhur nga xam ne da bu bu waxoon le day am ku jëkkalante bëgg a dem ci weeru koor sëñ bi ne weeru gàmm moo gën ci weer yi ndax weeru ci la yonent bi feeñ mu ne weeru koor nag weeru laab la ak boyal waaye weer weeru gàmmo moom moo indi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom sëriñ bi ci boppam nag mu teel a gàmm lool ndax bi muy tàmbali gàmm bi fi way juróom génne génne àdduna rek muy sëriñ Mor Anta Sali at mi sëriñ Mor Anta Sali génne àdduna muy muy muy sësin di 1300 wala doon 1882 ba ca déwén sa di asës ci la tàmbali gàmm booba la tuxu ñëw Mbàkke wax ne Mbàkke laa ganee jamono li tax Mbàkke gënal ma ci dëkk yëpp Mbàkke laa ganee jamono Mbàkke laa jëkk a gàmmoo Mbàkke laa jëkk a tagg yonent bi alayhi salaatu salaam kon moo tax mu ne ahyaytu mawlidin nabi min asasin wan qaada lii fawqal muna fii talsasin am na fii hagsasin am na min jamshasin am na xam na ne ahyaytu mawlidin nabi min asasin dundal naa guddi gàmmo min asas ci atum 1301 di 1883 wan qaada lii fawqal muna fi talsasin bañ demee ba talsas nag di 1339 wala doon 1921 la ma ci yàlla womatal lu fat lu kawe njort te mooy at mi woote màggal gi di 1921 wax nag man lëgtu na nabii min assasine man lëgtu man lëgtu na bii min assasine kitaabati wa qaadali min jamsasine ci assas googu it laa moomale samay mbind ci gàmm mu wammatal ma nag min jëm sasine daatum junni ak ñett téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn kon fii xam fii talsasin fii hamsasin fii jamshasin mu moom mu bëgg nag gàmmo moom sëñ bi bari ci ñaax ni ñi bi mu nekkee ci tukkib géej gi it daan gàmmo nga xam ne eh, boo xoolee eh, wajjahtu wa ci li man takrimuhu baana fii chahri mawlidi man fii baxri rabbaana nga xam ne bi mu nekkee ci géej gi sax eh, li lay chukre fii chahri rabiye nga xam ne fu mu toll moom mi ngi gàmm ba bi mu nekkee ci géej gi am na bis boo xam ne sëñ bi dafa yor ak ganaar amul kum ko jox amul ku ko rayal mu yóbbu ko ba ca quartier ga fekk benn soldat bu tudd Mouhamad mu jox ko am na gàmm goo xam ne dafa fekk sëñ Tuubaa ci géej gi sëñ bi senn saatu képp la yor sëñ bee demal boppam ba ca jaba marché ba sëñ bi jaay ko wute ko ay këyit ñëw di tarif nee na keroog muqaddamatul am ndax la doon yeesal waaye nee na bi ma ne wathiqtu bi rabbil arshi zul juudi wal afi maxal Mustafa wallahu lii muxlilin safi yonent bi dafa wàcc mbaar tiim nee na yonent bi dafa maa mbaar tiim ànd ak jibril lu ma bind yonent bi jox jibrilu jibrilu jox suñu borom lu ma bind yonent bi jox jibril jibril jox ba ma agsi ci ko su ko tasqini bi hada bi sharatin yonent bi ne ma am naa dégg bopp man rek la ko yàlla jox kenn musu caan naan ku dul man sëñ Tuubaa nee na yonent bi yóbbu ma fa keroog bi ma egge sukk daa mel ni déggub noor bi ma siggee daa mel ni diggub cooroor keroog jalaal ji ak ji dar na ma ba ku ma waxut ki ma doon xamoo nga xam ne kon loolu ci gàmmoo gàmm la woon ba mu ñëwee ci réew mi ba mu demee gànnaar day gàmm ba mu demee ci ciyeen day dem gàmm ba mu ñëwee njaareem nag nga xam ne lësës la fa ñëw di 1330 wala doon 1912 fukki at ak juróom yi fi def yëpp murid yi mag ñi ñëpp njaareem lañ daan gàmmu ni ñu woote màggal gi Touba booba mu njaareem mag ñëpp ña fa am kër ñu amul kër guddi am na bis boo xam ne mag ñi dañuy gàmmoo ci njëreem ba góor góornóor bi soxnaam daa réer ndax mbooloo mu bari maanaam soxna su góornóor bi daa réer njëreem ñu di ko laaj booba Cheikh Issa Diène mii day taras rek maanaam booba mënutoo am ay dab sax yu ñuy jox nit ndax bari waaye dañuy semante dara rek mel na ku ku dër dara rek sotti mbana yi booba dañuy tàmbalee ci kër Sëñ Tuubaa gi fi ñuy wax jàkk yi euh, maanaam kaddu euh, euh, kaddu jullikaay foofu fi la Sëñ daan gàmmoo at mu jëkk ba maam Thierno la fa yebal mu jiite mu jiite gàmm ay bant lañuy la ñuy def samp ko mu doon aw yoon ci la sëñ bi jaar ñu def ay kuréel ñii di jàng jës bu ñii di jàng mawaahi bu ñii mu jàng muxaddamaat ñii di jàng bari sëñ jiyu guddi gi sëñ bi day wër lakk boobu ñu defoon ci njaareem amoon utaloon ko barrière boo xam sëñ ko defoon sëñ bi da ko daan wër looloo war a sax ñuy wër kërum njaareem gi sëñ bi koy wër leen ba sori càpp waare tomb jógaat ba wër kër gi guddi gàmm ñiy jàngil moo leen di sottil gët di jël mburu di sotti maanaam nga xam ne belli gi nga xam ne bu weeru koor ñëwee weeru gàmm ñëwee jëmmi sëñ bi day yomb a gis maanaam ni muy jafee gis day am audience gis ko day yomb loo laaj mu jox la ndax yoonu yonent bi weeru yonent bi alayhi salaatu salaam mbégte mi muy am ci melow yi muy mel nga xam ne am na bis boo xam ne gàmm gi dafa mbooloo mi kenn mënu koo takk ci waxtu nekk loolu la muy jàngale mooy bari nit ñi ak bari xéewal yoo xam ne sëñ bi def na ko fonk gi gàmm gi nag tax mu koy wax ca nee naa la woon léegi at mu jot day yutal yonent bi xasida gàmm xam nga jës bu ci jëkk jës bu moom la taalifi Touba moo jiitu ci xasida gàmmo yi loolu moo la cay wax lan ban dimension la guddi gàmmo am ci feeñaayu yonent bi alayhi salaam waaye doon a ci doy rek daf caa tënk wax ne mawliduhu muazzamun mubarakun muxtaramun taxdimuhu yanxatimu ala dawi taqadum mu ne feeñu jamono yonent bi alayhi salaatu salaam lu màgg la lu barkeel la lu ñu wormaal la màggal ko war na ak waroon na dana war ci ñi nga xam ne teew nañ te jiite ay mbooloo waaye ñi jiitu woon war na ndax lu ñu am ci ñoom lu ñu am ñu ko amee ci barke Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kon tax si mu yan xatima la sabi taxadumi ku jiite mbooloo ku jiitu ku nekk war naa woote gàmm lu tax tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bis diyaadul minna li muxlisin muazzam wam gàmmo ko tanzimuhu bi sunnati gàmmo jaare ko ci sunna mooy la yonent bi bëgg nga di ko def jàng alquran jàng xasaayid berne nee na kat loolu daf ñuy wax ma tàbbal ñu àjjana te bis diyaadul minna li muxlisin muazzam mooy jëmmi dolli ko xéewal ci képp ku ko sellal te di ko màggal fa man yuadim mawlida nabiyina babil huda fala yuhaasabu gada faxtari man wa adimi sëñ Tuubaa nee na képp ku dundal guddi gàmm du la xisaab yowmal xiyaam kon fa man yuhaasim mawlida xayril baraya ahmada fakk shahidin shahida badran bi xeyri waham képp ku màggal guddi gàmm sëñ Tuubaa nee mel nga ni ku shahid fekk badar te badar moom ku ca mas a tabbi rek dañ la mbaa bokkatoo ci ñu yàlla bindal bakkaar mbaa yàlla ne suñ tubaa na bu màggalee guddi gàmm fa ka shahidin shahida bi xeyri waham fa kullu man anfaqa fii mawlidihi lmusharraf maalan bi xeyri sarafin walaw bi xadri dirhamin képp koo xam ne màggal na doon ko ne ab dërëm la te jubluwu ci ak yàq mu ne kon fa innahu ko man xadar yawma xunayni wa sabar wa yawma badrin wa nasar xayral waral mu faham nga xam ne kon képp ku ko def am nga yoolub xare Hunayn am nga yoolub xare Badar waaye nag am nga it xare Uhud ci képp koo xam dundal na ko moo tax mu ne li mawlidil muxtaari sirrun yuktamu isaw lu wara yan xatimu sëñ Tuubaa ne dëgg-dëgg daal gàmmo ay mboota ngi ci yoo xam ne nëbbu na ci ñëpp ngi rëy gum rëy ba kenn xamul nu tool toll loolu moo tax nag jëmmi gàmmo rëy ci sëriñ bi Cheikhul Khadim ba mu fonkal ko boppam fonk goo xam ne mënees su ko misaal nga xam ne waxtu wu nekk da cay soññee di jóor ci yonent bi alayhi salaatu salaam melo yooyu am xel du ko takk ci rëy waaye melo yoo xam ne ci ngëneel loola nag lan lay tegtale mooy bëgg gi mu bëgg weer wi bëgg mu bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax Sëriñ Tuubaa wax na man weeru gàmm bu ñëwee ni mu daan tatagale weeru koor bu ñëwee bay dem ni mu koy dalale ni muy amee lu muy yëg ci li koy metti nga xam ne da koy yóbbante leetar cofeel ak mbëggeel ci yonente bi alayhi salatu salaam abar rabiahu si wan idbaari bi naami min baxdi iqbaalihi bil ardi wa naam xam ne léegi weeru weeru gàmm bu ma dee woon ginnaaw sax di dem dafay bàyyi xéewal yu bare bare bari ak i ngëneel tedd abar rabiahu si wa taw dia murtaxila bi ma lahu min busharatin wa min karam nga xam ne du duy tàggoo maanaam day mel ni gan gu ñëwoon indi ay conteneur ñëw sëf ngëneel yëpp da koy bàyyi jox ko Serigne Touba hmm. waaye nga xam ne loolu muy waxit weeru gàmm mela wi muy mel sëñ bi da koy mel da koy yóbbant naan ko waqul lahu yaa rabial xayri inna lahu una qadiman bi maa yurdihi daa qidam ndeysaan dégg loolu eh yow weeru gàmm yaa ngi dem boo demee neel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna lahu una am na fii xadiman ku koy liggéeyal bi maa yurdihi daa dem ci lépp lu koy gërëm loo ci liggéey yow weeru gàmm yaa ngi dem waaye moo tax sëñ Tuubaa eh, dafa yéeme nga xam ne jëmmi weer wi lay yóbbante moom naan ko boo demee ne rasulullahi am na waa ju koy liggéeyal ju ne fii yoo xam ne li koy gërëm loo rek nga xam ne ko kon loolay wax na ko lahu qadimun yusalli bi salaami huma huna alayhi bil ali wal ashabi bi qalam nee ko am na fii xadimam boo xam ne day julli ci moom di sëlmal ci moom moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ngir bëgg gi mu bëgg yonente bi salaa salaam waaye weeru gàmm may ko lu kenn amut xam nga dégg bëgg naa gàmm bëgg naa yonent bi waaye raddi yaa xam ni rabbi yoxoon awali bi xayri suxtin indi seen asri moo dem ba ca yàlla na ko gërëm na Ahmadou Bamba ma def kenn defu ma ni fi ma teg kenn tegu ma raddi yaa xam ni rabbi yoxoon awali ko nu ne nañ koy waxee ci gàmm gi waaye raddi yaa xam ni rabbi yoxoon awali bi xayri suxtin inde zir arshil wali <laughs> loolu mooy problème bi sëñ Tuubaa ne inde zir arshil wali jëmmi weeru gàmm dafa dem ba fa yàlla na ko sant na Ahmadou Bamba moo tax Sëñ Tuubaa moom gàmm boo ko mooy loolu amul discrimination yoo xam ne nit ñi romb nañ foofu sëñ Modou nit ñi dañoo passé di négocier ci ak dëgg ak a la république moom moom réew mi yàlla moom la fi teg bu ko moo fi ne loolu mënoo moo moom moom loolu dèjà lu nit ñi di wax yeneen débat ku ne nag mën nga ko woote waxuñu boo ko kenn woote mais sëñ Tuubaa ko moom raddi xam ni rabihul awali bi xëyri suxtin ala dil arsil wali loolu amul problème xanaa defe naa lu kenn di bañ ah ndax lim ci def kenn defu ko ci lim ko wax kenn waxu ko ci hmm loolu nañ ko bàyyi xel loolu amul problème kon weeru gàmmu weeru sëñ Tuubaa la lii xaada rabbi fii rabiul awali maaraamahu walam yanal kulla wali xam nga kan nga déggagul mu ne yi wa ayaami xadal li samay weer samay bis bis pénc dañ may seere ci sa kanam sama borom sëñ Tuuba rek te bari na ñoo xam bu leen seen i bis seere musiba am bu leen seen i weer seere musiba am ndax lañ def di ko nëbb nit ñi xamuñu ko waaye sëñ Tuuba nee na ñaar yii samay weer samay bis dañ may seere ñaari malaaka yi di raqiba atid nga xam ne alquran ne maa yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul kenn koy dox ko amul ñaari malaaka say bag yoo xam ne loo jëf ñu ñu bind ko sëñ Tuuba nee na ñooñu ñoom bët bu set dañuy dem fa yàlla di ko wax ne Ahmadou Bamba yashhadu lii bi daa raqibun wa atid fi kulli yawmin inna siraatal majid hmm? kon euh, weeru gàmmu sëñ Tuubaa daf ko fonk bëgg ko bëgg gi mu ko bëggit ak doxin woowu moo tax ñiy jàng xasaayid yi muy jël gëtt gi di leen sotti di jël alalam di leen jox di génne noog ñoom it gis gi di gën a neex ci moom ndax bëgg gi mu bëgg yonent bi loolu nag moo ko may mu yegg ci ne muhammadun yuhibbina yuhibbuna wa qaama bi maa yasuru naa wala nu laa ma suñ Tuubaa nee yonent bi daf ma bëgg man damaa bëggoon yonent bi ba léegi yonent bi bëgg ma yemul ci bëgg ma waaye bi ma yasuru naa xaama xaama bi maa yasuru naa lépp lu may bégal nga xam sama bëgg-bëgg la sama neex la ma lu ma neex la man suñ Tuubaa léegi yonent bi sallallahu alayhi wa loola moom ca lay dox kon looloo tax mu fonk gàmm moom la Serigne Saliou Mbacké waxoon ne képp ko koy yamaleeg bis ba ko jiitu ak bis ba ca topp xamoo dëgg-dëgg gàmm te defe naa fii adduna bi toll léegi li ñuy defal yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci gaaw Arabie Saoudite gii daan doon doon jéem a di ay gàmmo yooyu daaw gàmmo nañ da daan gàmmo ren dëgg mooy dëgg kon ñii ne fii di tërëre naan gàmmo bidaa laag nangam yooyu màggal sa sëriñ màggal sa kilifa ki tax nga am ñu bis bii la gane jamono nga di ko màggal loolu kay bu fekkee ne bidaa la kon ana lu baax yenent bi sallallahu alayhi wasallam lu ko waay defal ngir màggalale ko loolu yaa ngi dabu bëgg-bëggub yàlla ndax yàlla sunu borom kat manoon na ne ku ma topp dem àjjana waaye ku ma topp te topp rasulaay du ma la accepté waaye ku topp rasulaay ne topp nga man yuti rasul fa ataa allah ku topp yonente bi rek topp na ma man moo tax sëñ Tuubaa nee na xaraamun ala man hudaahu aba duxuula jinaanin daxilan taarix wa man lam yelid nahjahu yun badar bi qulin thaqirin wa naarin na foo kooku mooy sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa moo ko jox gëddaam sëñ Tuubaa moo xam xaq yonente bi alayhi salaatu wa salaam sëñ Tuubaa moo bëgg yonente bi egg ci effacé lépp maxat mahabati al muxtaara sayidina xobbil maganiya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu abudan qadiman lahu muskaana li sanada xoola doom alal ay taalibi lépp nga jaay ko ngir bëggee ko yonente bi salaa sallam moo tax benn benn waykat kenn ci mag ñi bi muy tagg sëñ Tuubaa ci bëgg yonente bi dane ko adaaba qalbuka xobbul xebbi yaa sanada fa xobbu xebbika yamxu xobbakal walada kon xam nga kooku moo gën a bëgg yonente bi salaa sallam kon loolu lenn la ci incha allahu li ñu ànd ak bokk yi di ko tàmbalee ci ci ci njëlbeenu gàmmo gi li ci gën a neexit mooy sëñ Tuubaa moom fi taalibe yi gàmmo dëkk bu ñuy gàmmo ni muy mel gàmmo bu rek buñ ko doon jàng doy na sëkk ah huwa la si faaxa siwa min al baraya bi huda hatta bada kat bu sama fi arshikal mu'azzam kooku buñ ko doon jàng rek jës bul xulub ci gàmmoo ko li ci sëñ Tuubaa jóor bi alayhi sa taxa xiina wulida xawla loolu ni mu ko jàng bala nga dem ca muqaddamatul amdaax dégg nam taggayun nabiyun rasulun xayru abdin wa sayidin xalilun xabibun mislahu laysa yulam jàngal la nubuwatu qabla albaraya qad jalat lahu sabqa inda jadd fii yoo yowsan boo ñëwee ci mawaahibu naafix kazalika nag hmm? nga xam ne saakal xaribu saakal mujibu saakal najibu saakal lu nekk mu jur ko sallallahu alayhi wasallam kon boo xooloon jës bu mawaahib mu xadim bokkul ak nag nga wax raiya bokkul ak nga wax miimiya bokkul ak nga wax nuuniya bokkul ak تائي موي حمد سليمان بسرف المسيات noonu yee mooy xataaba mii mi yee mooy alxal bi ne fi salima xat salima yooyu yëpp sëñ bi wax ko ci yonent bi salaahu salaam kon loolu li muy jàngale rek mooy moom bëgg yonent bi ak fonk yonent bi salaahu salaam bëggoon ko di ko dundal ba noppi joxe ci ndigal ñu di ko dundal kon yàlla nu ko yàlla dolli ay xéewal te jéggalu bokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan fu ñu mën a nekk di leen bal waq yéen ñëpp wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ah macha allah jërëjëf euh, Serigne Gana Messere Makhtar mbokk yi yaakaar naa comme niñ leen ko waxee rek yaakaar naa lu bees saq génnati ci li nga xamante ne mooy Serigne Touba ak yonente bi sallallahu alayhi wa Euh, yi faral di wax saa su nekk mooy sëriñ bi dafa toll foo xamante ni suñ gànn dañoo war a gëstu am mbindam bu baax a baax a baax a baax ndax waruñoo yem rek ci sëriñ bi eh, fi mu tekk yonent bi li mu wax yonent bi gars yi dañoo war di génne bind yi Mhm. waaye tey yaakaar naa ne eh, tomb yi alwe yi tooyaat na bu baax a baax a baax a baax di la ñaanal suñu borom gën laa kattanal ci li nga xamante ni mooy taxawaay yu am solo yi waaye saa su nekk rek ñu dellu si ci eh, fi mu daanalee njëlbeen waxam dégg nañ ci tudd ne Serigne Saliha Mbacke moom it di ñaan suñu borom eh, yokku ñu ay leeram bu baax a baax a baax a baax naka noonu ñu gis Serigne Saliou it ni nga xamante ni noonu la daan fonkee gàmm. xamante ni euh, mën nañ ne 2004 euh, gis nañ bi ñu génnee màggalu Touba rek dafa woote wax li nga xamante ni mooy solo si li nga xamante ni mooy gàmm gi kem fi nga xamante ni foom lañu ko war a teg loolu yaakaar naa ba murit yu bari yaakaar naa jamono jii nii ñu toll euh, boo demee fële ca ak lu génn Dakar ab fépp foo xamante ni ab murit maa nga fa rek bu bisu gàmm ñëwee rek nga gis ñi nga xamante ni moom lañ koy dundalee loolu it day doy sëkk it saa su nekk ñu koy fàttali bokk yi nga xamante ni it ñoo ñuy topp waaye na ñi nga xamante ni yaakaaruñ ku dul Seexuna Ahmadul Xadim weeru gàmm bu ñëwee kenn ku nekk loo mën ci jàng ci xasida wala ay salaatu ala nabi alquranul karim ñu xam ne kat ki nga xamante ni moom lañ yaakaar tey ak ëllëg di Serigne Touba Seexuna Ahmadul Xadim léppam daf koo jëloon joxoos yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ñàkk rek kàdd yu gàtt yoo xamante ni soññ ci murit yi nga xamante ni ñooy wuyoo ak murit ñooy wuyoo ak taalibe fan lañ war a teg ñoom it li nga xamante ni mooy gàmmu sëñ Gànna non jërëjëf muy ndigal rek li ma wax léegi li sëñ Saliou waxoon rek ko ko yamaleeg bis ba ko jiitu ak ba ko mujj rek xamoo dayoom te sëñ Touba yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la bëgg nga xam ne kon lépp lu muy wut ci yàlla ci la koy jaare bihi arumu jamian xayri min maliki fa xool wasilatu fi siran wa fi alani kon ku koy defle ginnaaw ginnaaw sëñ bi moom daa gis nga sax weer bi ñu lakkal ci màggal gi sant loolu sa wax ne nañ ko ci sant la yàlla buñ ko ci sant la yàlla ba noppi nag dellool ko ci njukkal yonent bi alayhi salaam ndax gàmmoo ga ci sës bu ko defee nu wéy nag di san Sëñ Tuubaa rek kon murit bu nekk na ko fonk ndax ab jullit moom day yoon ci moom mu fonk yonent bi alayhi salaam rawatina ab murit nag ndax ginnaaw Sëñ Tuubaa moom addunaam jëpp yonent bi alayhi salaam la ko jóor nifaali wa ibxaa'i wa fawsi bila anan bi kaw ni qadimal Mustafa tatabayyan yu bajjilu kulli kullakal yawmi ma gadi wa insha rabbi la ura dahra daawan lépp waaw da ko jooy ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nag nañ ko ku ne la nga ca man wala bi xadal dërëm yi yomb na ab dërëm rek yomb na ah, nga xam ne loolu ci jamono boobu ni mu mel def ci reer bu baax ndax bégal gi nga ciy bégal waa njaboot gi nga xam ne yaa xam ne yàlla wa nga xam ne day fexe day aar njaboot gi ba noppi day dolli xéewal yi ci kër gi kon nañ ko yaatal def ci xéewal yu baax ba noppi dundal ko fa nga nekk mun dajewul doxal dem jumaa ja baa nga dem fa ko murid yee woote ndaje ma yore sa xasida boo ko mënul yore sa course julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam loo mën ci tiyaaba ngëneel nga def ko ndax amul perte loo xam ne moom ku ko màggal nga xam ne mawliduhu muazzamun mubarakun muhtaramun tanzimuhu yanhadimu sawa ala sawi a nga xam ne kon moom la ñuy xasib mawlida nabiyina babul huda fala yu xasa bokada koo xam ne boo ko màggalee duñ la mbugal kon ndigal la kon nag sëñ Tuubaa moom dañu cee jox sax euh, ndigal na ngeen ko màggal yéen te na ngeen ko na ko dundal kon yàlla na yàlla defal tawféex di sant mbokk yi ngeen àndal sëñ Abdoul Aziz euh, Diop mi nga xam ne moo nekk Guy Mbind TV ak euh, sëñ Ablaye Sey mi nga xam ne moo nekk fële ca bitim réew moom it noo ngi koy jaajëfal baax ak sëñ Ahmed ñu ngeen àndal ak sëñ caméraman Baye mbay ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen jéggulu jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah jërëjëf Serigne Kane Mesere Maxtaar ci kàddu yu jotale yu matale yooyu mbokk yi di leen wax rek incha allahu rabbi fii rek la ñuy yemande ki ci wàccaay yi nga xamante ni Touba Vision mi ngi koy faral di ànd ak yéen saa su nekk rawatina évétement buy ñëw ni ki jamono jii nag ñu nekk di waaja li nga xamante ni mooy guddik yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax kenn mën mënut ne taalibi Serigne Touba nga te li nga xamante ni mooy gàmm comme ni ko Serigne Kane waxee rek. daanaka defoo ci yitte defoo ci Pastef ku xam dégg dégg dëgg dëgg sëriñ bi naam moom kenn mënu koo xam waaye ak bëggam léppam daf koo joyaloon yonent bi sallallahu alayhi wa kon Touba Vision yoll na jaadu na mu beral li nga xamante ni mooy gàmm utal ko ay wàccaay yoo xamante ni kenn ku nekk moo xam fépp foo mënti nekk boo koy topp rek sa xol dina mën a sedd bu baax a baax a baax kon fii la ñuy yemandek yéen suñu benn ci suñuy numéro kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Hey